bokkuñu xëy na millier wala bokkuñu daje ñoom seen yooyu li ma xam kas néew ci Ousmane Sonko avant muy falu xawma ma ko ci moom waaye nag nit ñun comme dañoo jàng mu ñuy jàngalee jàng tuuti ci communication bu ñu xoolee nit ñaari bu waxee ñaari baat ak ñett duñ xam cent pour cent mais mën naa am ñu am quarante wala cinquante lu dëgg euh, ci ci ci doxalin yi muy dox ak wax yi muy wax ak communication yi ñun ci loolu la ñuy sukkandiku léeg-léeg jàpp nit ñaare buy communiquer ak nit su bëree lu muy sëgg du def dara ndax nit buy wax ak nit dañoo bëgg mu siggi di wax ak nit ñi moo tax ba demee ci jumaa minbar ki imaam mi xutba du toog léeg-léeg dana dana taxaw waaye léeg-léeg dañ koy tefal lu kawe mu taxaw ca lu tax parce que muy xool nit ñi nit ñi di ko xool kon ki communiqué nga gis muy xool nit ñi yëgal ne kii amut lu mu làq ci ginnaaw da ca tege kere bi ñu ne suba la 4 avril discours bi mu def président yi ko jiitu woon yàlla na yàlla sàmm leen da daan toog rek télé bi jëkkër ne la dajji moom tele bi dafa taxaw ba noppi ba yëpp sotti mu jékki-jékki génn ci bitti xamuñ fu mu toogoon jékki-jékki génn ñëpp seen ku mu ñëw ba agsi ba agsi ba def ñaar loxoom yi ni ñu jàng communication dañu xam ne kii li wax ñeme na ci fi mu jëm tam ñeme na fi lu dëgg donc ñun yooyu li ñuy jàngat ci moom mu taxawit ne lii laa bëgg a def ak léegi lii ñu ci jot a kas néew ñu ngi koy jàpp par ndànk-ndànk mu des nag gis nga nun Sénégal yii su fekkee niñ meloon ci mandaam Ablaye Wade mel ko ci mandaam Macky buñ ko melee ci mandaam Jomaay mi nun rek nun lañu doon yéen ñi jàng tubaab yéenay wax alternance ak alternative xam nga su fekkee ne dañuy jële benn président ca palais ba mu dem ñu indi keneen affaire bi loolu de affaire bi ñun ñuy jëlee nit ñi palais ba ñun la soxna si dafa am ci bitim réew ben barab buñ doon aaye ko fa lal di jaay benn sénégalais ñëw lal fa di jaay police bi ko dem del siwaat fekk mu lalaat une deuxième fois mu dàq ko mu del siwaat fekk mu lalaat nga xam ne saa bu demee bu ñëw dee fekk mu lal xam nga lu wax yow ban nationalité nga mu ne ko mu ne ko ñaata ngeen mu ne ko mat nañu 15 millions mu ne kuy seen président jamono yooyu mu ne ko Macky Sall police bi nag bu fekkee yéen ñëpp nii ngeen mel yéen Sénégal yëpp bu fekkee nii ñëpp lañ mel yërëm naa seen njiit xam nga loolu jar na di jàng mooy ñun nii nu mel bu soppeeku jomaay mënu ci nu dara Ousmane Sonko mënu ci nu dara bu fekkee niñ mel lañ soppeeku xam nga ñun ni war a mel mooy dañoo fal benn président bu doon gone xam nga loolu yoon mooy bu ne ma tàllal sa tànk bi rek ma tàll ne oustaz bankal ma bank jógal taxaw ma jóg mais ñun duñ def loolu kenn ku nekk fam fam gaari oto bu xënt ba 1964 fam gaari woon otom ba bu fa bu fa bu fa gars yi demoon tey ne ko dañuy jël oto bi moom jaaral na jaay leen seen bakkan avec ça ñu bëgg dëkk bi du xajam bëgg dëkk bi set ni ñuy defaree bu ñu ko soppiwut suñ transport bi bu ko soppiwut suñ jëflante yi bu ko soppiwut suñ naxante bi bu ko soppiwut lijjantim xaalis bi bu ko soppiwut du mën suñu dara waaw ah, donc fi ne nañ ma baal su jógoon daal ni diw xaalis bi mu jël jaaduwul ñun ñoo jóg jóg ne ko dangaa soxor lii taxul woon ñu fal la waaw président bi fi jóg waxoon naa ko de dama ne ko woon yéen ñi ñëpp ba ci jomaay mi ku ci ay dañ lay wax yaay sunu yaay yaa war a togg tey ndékki omelette lañ bëgg a ndékkee waaye bul toj nen <laughs> ñun loolu la ñuy def yi kenn comme luñ bëgg omelette lañ bëgg a ndékkee mais nag bul toj nen léegi nag mu am problème kon nu ñu ndékkee omelette dañu yàlla dimbali kon yaakaar naa ni oustaz Aliou Sall def na jàngatam jëmale ko ci suñu président de la république muy Bassirou Diomaye Faye li mu xamle laata ñu koy fal xamu ko woon biñ ko falee la ko xam mais def na ay jàngat ci communication ki nga xamante ni mooy Bassirou Diomaye Faye en tant que un expert en communication li ñu xam ci wàllu diine nit ki suy wax di sëgg wala nit ki suy wax du xool nit ñi kon jàppal ni ko kooku lépp lu muy wax dara du ko def ndaxte xamul mënul loolu yakarna ni même marketing wala ngay jàng dañ la koy xamal tubab sokoy wax nga wax ko deug il faut lui regarder droit dans les yeux ban nañ ko ba ci marketing nee nañ la pour nga convaincre nit il faut avoir le contact des yeux le contact des yeux parce que tubab nena les yeux ne ment pas bët du fen nit ki ni nga koy xoolee ci bët ak ni ngay waxe rek day xam ne ki kii li muy wax deug la ndax te deug bi da fay feeñ fofu mais soy sëgg da nga xamne amna loy lam lamé kon muy ay. analyse boo xamante ni kii di oustaz Aliou Sall def na ci ki nga xamante ni le président de la république Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement bi donc yaakaar naa ni sénégalais yi suñ ko déggoo dinañ xam ne lu am solo la moom en tant que président de la république aussi mën na ci jàngaat ba changer li nga xamante moy communication peut-être il n'est pas habitué à communiquer devant un public loolu moo waral mais tey su jàngee ci li ndaxte ëllëg ak ci biir day dem ci yeneen dëkk te pour mu mën convaincre ñooñu moom am ay financement mën convaincre ay investisseurs pour ñëw Sénégal foog mu jàng lan moy les techniques de la communication muy analyse bu am solo boo xamante ni kii di oustaz Aliou Sall wax na et ñi ngi recommander le président de la République Bassirou Diomaye Faye mu bay ci xel bu baaxa baax parce que avenir du Sénégal fi ba 2029 ci loxom la nek nekul ci loxo Ousmane Sonko faluñu Ousmane Sonko président mom lañu fal na def attention nak parce que ñi ngi gàkkal li nga xamanteni ne mandam ci wàllum invité ay góor jigéen fi suñu rew bëgg indi ay promotion yo xamanteni de fay dégager li di de jigéen mom nak ni ma ko gisé ak ni ko je crois que dubaï l'eau lolu mu donc na gëna vigilant ci li nga xamanteni sénégalais yi nañ ko son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Fay bi prêté serment le 2 juin jamono de Ousmane Sonko mi ngi deuxième rang ci gannaaw chaise kon nag xam ni le président de la République du Sénégal il doit prendre ses responsabilités à tout prix et à toute mesure Yeah.